asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 23 avril 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb fa la ñuy xëy doore ji ko yëglikaay ba nag tey mataar ba la ñu xëy woon ci aw foto mook Alioune Sarr ñoo toog maanaam ministre bi yore làmb bi yore sport réew mi ak ki yore làmb réew mi muy bëre bi muy ka nga xam ne mooy docteur Alioune Sarr ginnaaw ñaar fukki at ak juróom benn maanaam 26 ans yoo xam ne daal nekk na nag di jiite làmb ji mu mel ni que nag daa mel ni day fi mu nekk nii ak demam jot na moo tax yëglikaay ba daal xamal nañu ne day mataar ba nag lase na Alioune Sarr maanaam daal bàyyi na ko loolu sunu làmb xëy wax nu ko de jàppal na nañ nag fi mu nekk nii daal ñu ngay wër ñu xam ne nii ñoom la ñu war a dénk mbirum làmb ja ñu yore ko maanaam ci ay xibaar yu wóor daal yëglekaay bi ne moo ko gëstu ka ko def nag mooy Iba kan moo ñu xëy xamal lu mel ni ki noonu mel ni ki nag am na ñeent ñoo xam ne daal fi mu nekk nii dèjà ñoom consulté nañ leen ngir ñu war a jël place Alioune Sarr booba jiital làmb ji moo mel ni ki nag jàppal ab arbitre moom bokk na ca gaañooña waaye ña nga xam ne ñoom bu ñeboo wala boog ñu jàpp bokk mooy mooy ancien lutteurs yi ñoom daal daa mel ni mbir moom moom des leen caa teel a génne loolu yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni moom dañ ne woon ay weer yu néew ko dese mu am 45 ans bàyyi làmb ji jeexal muy Bombardier mu mel ni ki nag tey ñëwaat na di waxal boppam moom Bombardier ci làmmiñam nee na li leer ba leer daal carrière am moom kuy xaar mu jeex ci 2020 bi moom booye boo nga xaddi ndax nee na loolu demee wut noonu nee na ni mu demee nag nii la 2021 daal nee na ci la carrière am di jeex mu nga juddu 1976 le premier octobre ca Mbour fa nga xam ne nii nag moom mooy Mbour kooka daal nee na fa la ganee àddina am 44 ans nee na kon 2021 daal ci la carrière am nar a jeex nee na bu boobee itam mu bëree wala mu bañ a bëre moom lu mu ci am day dana jël waaye nag bu sañoon daal dana bëre loolu daal la xëy wax moom Serigne Dia Bombardier nee na nag ña nga xam ne nii ñoom la jàpp ne ñoom la war a bëreel nee na du kenn ku dul Balla Gaye 2 Modou Lo Gris Bordeaux Tapha Tine Eumeu Sène nee na ñii moom bu sañoon dana ci am kenn balaa carrière ma jeex ngir mu defanteeg ñoom ngir jaar ca bunt bu mag ba mën a génn dem aw yoonam loolu waxi ka nga xam ne nii moom moo di Bombardier la ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di sunu làmb mu mel ni ki tamit bu nu continuer fa nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay booba di sunu làmb Fifty Cent fekk nañ ko fa école de lutte Mor moom itam day Alioune Sarr la xëy daal di ko tàkkale dal ci koom dal yu méttee métti nee na ko li am ba des daal xaw ma mu dem wala mu toog waaye daa jàpp ne moom lu fi yàqu moo ko yàq Fifty Cent na ko wax de du sama ay wax na na leer ba leer mbirum dictature moo am ci làmb ji doon buur doon bu mi doon sax desutu buur di def la la neex ne na loolu moo fi am te ne loolu nag dakk dong la war a def mu mel ni ki nag mbir moom mooma moom jàppal yëg ni moom daa mel ni itam démissionné wax na ko yëglikaay ñëw nañ ci moo xam sunu làmb la wala record waaye bu ñu demee ci record moom yaxi jom yi ni daal la mu xam le moom ne na génn ca mbir bu yàgg a yàgg waaye nag jàpp na ne day génnam googa tekkiwul ne bi liggéeyuñ fi dara nee na déedéet demewul noonu am na lu ñu fi def loo xam ne nii ñépp gis nañ ko te mu ne su koo weddi waaye nee na nag seeni xalaat wala boog seen énergie moo jeex mënatuñoo def lu ñu fi defu kon nee na moo tax nag ñu war a dem seeti leneen ñeneen ñëw def lu bees loolu mooy wax Yékini mel ni ki tamit lu baree bari daal ñëw na wax ca booy ña nga ka nga xam ne mooy Balla Gaye ka nga xam ne mooy Ama ak Modou Lo lu ci ne Yaxya laal na ca mu nga ca record ka nga xam ne tamit ancien roi des arènes la nekkoon fi muy Manga 2 yëglikaay bii tey xëy na ñëw ci moom moom Manga 2 moom record boo bëggee dégg dëgg daal 44 combats bëri na kook ñaar fukki mbër ak juróom-ñeent maanaam 29 litres yoo xam ne bokkuñu maanaam yëglikaay ba ñëw na ci moom waaye daa mel ni écrit ba di faas moom lëmbe na fa def fa lu ko neex ndax nag daan na fa ñu baree baree bari moo xam ñoom bi ta njaay la ay ndem si yàlla tubaabu joor ak ñoom moor ngeer ak ñu mel ni bëre ak ñoom ñu ca bari daan na leen waaye terewul tamit ñoom daan nañ ko sax ndax kii di joor daan na ko benn yoon Mor daan na ko mook Père Birahim Ndiaye moom yëg likaay bi boo bëggee dégg maanaam am nga ko ci sa morom benn match si niil benn défaite ku ne am nga ci sa morom digganteem ak Père Birahim mu mel ni ki nag am na 10 ans yoo xam ne maa nga def na ko ci làmb la ko commencé 1971 ba 81 yoo xam ne défaite moom ko da koo teglante di ko daan mu mel ni ki yëg likaay bi ñëw na ci moom moo xam su record daal lam nu xam xam leen ne victoire am na ko moom Manga 5 défaite ak 5 nil yëglikaay baa nu ko wax waaye premier avril bi nu génne 2019 jàppal yëglikaay bi ne na kii di Macky Sall moom décerné na ko ordre national du lion mel ni kon daal màng am na loo xam ne def na ko tey daal coup bi record moom da nga gis ci moom lu doy doy waar ci jaar-jaaram ci lamb ba na ma ko bàyyee keneen koo xam ne nii moom ñooñu màng de bëril daa mel ni ñoom la xëytal solel mbubu avocat muy Tafa moo xam ay Aline Aline la Faga 2 Pape Diop Boston ak Mohamed Ali tëdd ba ñu tëdd daal ba ci duubalees la jàpp ne daal waras na caa wax gën leen a jàppale Tafa Gueye moo xëy tey ci record wax fa lu mel ni kii noonu mu mel ni kii daal kon loolu mu ngi ci journal bi nga xam ne moo di record waaye dañuy dellu sunu làmb mu mel ni kii nag jàppal lit simple bi moom laataa muy taxaw ba corona bi ñëwi daa mel ni nag yëglikaay bi xëy na tey def ci classement premier ba ordinateur moom la maanaam daal am na juróom-ñetti jot na koo gagné ñaareeli place ca toog mooy caaka fay juróom-ñaari drapeau gañe na ko ñetteeli place ba Doudou Sané di Kadhafi bu Joof yor moo fa toog moom itam gañe nu cinq drapeau maanaam juróomi drapeau quatrième place ba nag ay ex ko fa ne muy booy fay obali ak ka nga xam ne nii mooy paka la ñoom ku nekk ñeenti drapeau jot nga koo yóbbu waaye tamit cinquième place ba ay ex aequo ñoo fa ne jàppal Serigne Ndiaye deux Kalmu Ndour ak Faran ñoom itam ku nekk jot nga am ñetti drapeau saison ba door a taxaw yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw niki noonu keneen koo xam ne nii moom ginnaaw ba ko feebar dalee muy bàcc seeraas mu mel ni ki nag hôpital Thiaré ba mu nekkoon daal jàppal wéetu fa de ndax nag mbër yii di Boy Niang ak Gris Bordeaux maanaam ñoom teel nañoo jóg dem jàppale ji ko mu mel ni kon daal bàcc seeraas mooma ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla wéral indiwaat ko ci sagoom ba mu delluwaat di def la mu daan def ndax nekk na mbër moo xam ne man Mansour saf na xorom mën naa fecc bëri na bàyyi te bëri am na ko fit moom deesu ko ko jaay ndax ci moom la dëppee kon bàcc jógal ak ak képp ku di rawatina ñii nga xam ne ñoo na ci corona bi yal nañu wér ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal waaye nu moytu moytu baax na de nanu moytu salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen comme ni ñu koy defee euh, ñëw ak yéen si li nga xam ne ni mooy jàngat bi ginnaaw ki nga xam ne nii Babacar euh, def na revue bi ma daal di si fekk sama mag sama xarit Babacar si loo nekk nam naa. Euh, maa la sama rakk sama xarit Serigne Moussa Niang la raw. yaay Paate maa lay bëggee ana mi ngi fa mi ngi ci jàmm. mbaa mi ngi nàmp normal yaa ngi koy nàmpal. Ah, waaw. ko jox biberon de da ngeen di yàq xale di leen jox biberon te kenn xamul moom mu sow fu muy jógee. Ah, mais Babacar bi ci ween wenn dafa am solo ci doom. waaye bi waroon nag mënul ñàkk soo amee yaay joo xam ne day liggéey nag moom bi waroon mun see ñàkk. d'accord ma ci de d'accord ma ci yooyu de xale dañ koy nampal ak wenn mooy tax ëllëg nga xam kii lu muy doom ndax am na lu Sané waxoon ca théâtre te daa jara moytu. yaa ngi dégg waaw dañuy daal di xam ni rek eh, na allaitement mixte parfois mun a ñàkk ci ci ki nga xam ne yaayam day liggéey. li <laughs> ñu daal di dugg si li nga xam ne ni mooy eh, jàngat bi daal di tàmbalee si li nga xam ne moom la suñu lamb andi tey à une mu nekk eh, consultation yoo xam ne ministre Matar Ba mi ngi koy def nee nañ ginnaaw Alioune Sarr def na 26 ans tey nag Matar Ba décidé na ko bàyyi ba commencé ay consultation pour xool kan moo ko war a mën a remplacer loolu la suñu lamb andi tey. waaw loolu day moom la yëglikaay bi xëy tey indi ci gëstu Iba Kane mu mel ni moom sursum bu leer daal xamal ne dana ko ne daal ministre bi mu ngi serse ay wala boog mu ngi consulter ay nit ngir ñu jër place Alioune parce que jàpp nañ na heure bi jot na pour mu war a dem ah loolu nag defe naa ne tey bu amee dina am ñoo xam ne ñoom mën nañ ne ñoom kon dañ naan am nañ gis-gis boobu parce que àddina moo tëdd nii ñii dañuy bëgg lii ñuy bañ lii yaa ngi dégg leel nag ki yore cëggal gu yam nag du kenn ko du le ministre des sports monsieur Ba mi ñu dénk sport réew mi tey nag moom comme ci décret defe naa ne bu coow demee fii te Alioune Sarr yaakaar naa ne 26 ans moom foo ko def yaakaar naa moom ci boppam yaakaar naa ne actuellement sax est-ce que kenn gën na koo bëgg dem foog naa bëgg naa dem mais lu ci mënte xew daal ñi nga xam ne ñoo fi nar a ñëw ëllëg yàlla nañ nekk ñoo xam ne bu ñu fi ñëwee li fi Alioune Sarr defoon yàlla nañu def lu ko supérieur ci loo xam ne njariñu làmb lay parce que lu ñu la mën wax tamit Alioune Sarr depuis mu fi nekkee ba tey ci li ñu xam ñun wala li ñu wax am na lu bare bare bari loo xam ne def na ko fi mook équipe am loo xam ne am na am na loo xam ne tamit nit ñi amuñu ci satisfaction mais àddina mu tëdde noonu mais kii ñëw daal yàlla na jig làmb waaw. Amin Babacar lañ ci mën a wax ñu jóge foofu tam daal dem tamit ci ki nga xam ne mooy ni moom tamit euh, di ginnaaw bi nga xam ne ni bokkoon na ci groupe Alioune bi depuis mille 2018 moom nag nee na daal di quitté li nga xam ne mooy CNG bi. mille waaw 2017 la sax ah. waaw boo xoolee waaw moom quitté na. Ah, waaw waaw ah, waaw kon kon noonu la demee ay sa waaw maa ngi yax ya quitté na mu mel ni kon moom tamit xëy na li ma la wax la rek xëy na moom duggoon na ñàkkul gis na loo xam ne xëy na jàpp ne lii satisfaire ko wala pour moom mbir yi warul doxee ni ba tax mu génn loolu tamit am na si droit ay sa bi nga nekk sax boo demee ba xool xam ne lii li nga bëgg ak li muy doxee du benn am nga droit kat bind leen démissionné dem seeti leneen parce que comme li olof yi wax rek yàlla am na benn yàpp budul jën nag waaw dañu jógee ci Yékini dem si Bombardier fan yi nag ñu ngi doon agité li nga xam ne ni mooy li ko dese si lamb moom nag ñoo na andi ay précision xam ne 2021 la la retraite am di jot su amee combat baax na su amul combat nag mu demee noonu. waaw waaw loolu la wax de parce que yëglikaay bi di record ñu xamaloon démb que ni li ko dese ay weer la mais ba nga ji daa mel ni loolu àndu ci ak ñoom parce que moom xamle na ne la juddu ca yaa ngi dégg ne na foofu la gane àddina kon jàpp na ne moom carrière am 2021 lay jeex ci la licence u làmbam di jeex ba tax na nag gëm li na ne moom tey def na loo xam ne mënatu mënatoo def lu ko supérieur ci làmb moo tax amee combat baax na su amul combat baax na wax na tamit ne bu sañoon bala bëri jeexal dina ci bëri ak kenn moo xam moo xam Tapha la moo xam bom euh, Balla Gaye la moo xam Modou Lô la ba ci Eumeu Sène muy ñoo xam ne tamit ne ku ci ne ci mu cité war nañu mën a seet kenn ci ñoom mu bëri ak Bombardier parce que jàpp na ne saison bii moom parce que kii na quoi wax jeex na ba pare te loolu dëgg la waaw. waaw euh, Babacar dañuy jógee foofu tamit euh, daal dem fi nga xam ne ni mooy euh, record fekk fa ki nga xam ne mooy Manga 2 Abou Ndour ñëwaat ci li nga xam ne mooy carrière am ak jaar-jaaram te nekkoon na fi roi des arènes. waaw mu mel ni kon moom itam bu tey ni ko Abou Ndour xëyee gëstoo Manga 2 am na solo trop mu mel ni kon daal carrière bi mu def moom riis na trop trop trop macha allah ci ay ndam ndax boo xoolee ci yëglekaay bi 71 1971 ba 81 10 ans la ferme yoo xam ne Manga kenn daanu ko sans compter nag li mu am ci ay ndam ak mbër yi mu bëreel li mu def écrit bu mel ni Fass ak lañ ko fa def mel ni kon daal tey ak ordre national du lion bi ko président Macky Sall takkal ci avril 2019 yooyu yëpp yëglikaay bi ñëw na ci mel ni kon tey ku bi record moom di nga gis ci màng loo xam ne ni daal lu réeroon ci moom boo fa ubbee tey di xam ñi mu daan ñi ko daan ak ñoo mat si ñi dal waaw Babacar ci mànga la ñuy jógee daal dem euh, seeti ñi nga xam ne ni ñooy bëre lu simple bi suñu lamb def euh, benn classement mi parcours parce que nag saison bi jeexagul mm. mais def na classement mi parcours mm. daal di génnee ñi nga xam ne ni ñooy trois premiers yi daal di andi ordinateur premier fay Faye Doussane

moom itam defe naa du ñu bett ña ca des tamit ne ca yeneen place muy ñoom ay booy Faye ak ay ñoom euh, ña nga xam ne nii ñoom ñooy ay yeneen mbër ya ca des ñoom ñëpp ku ci ne bi nga ñëwee am na loo indi Boy Faye bi mu dikkaatee Sénégal dem Maroc ñëw am lu mu indi ñoom Serigne Ndiaye 2 ay franc mel ni kon daal mbër yooyu actuellement ñoom ñooy ténor lutte simple yi waaye nag actuellement ka ca kanam mooy ordinateur du Faye ma koy nuyu di nuyu waa Ñaaxar yëpp ak supporteram yi waaw donc dañuy jeexal ak euh, ki nga xam ne ni mooy Tapha gi tey nag euh, mu ñëw solal mbubb avocat yi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy euh, mag yi nga xam ne nekkoon nañ ci làmb ji ku si mel ni ñoom Alioune Fall ñoom Mouhamed Ali ñeneen ñeneen parce que seen yaram neexul mu bëgg nag ñu jàppale leen. waaw loolu mu bëgg day defe naa ne mooy li war a am parce que itam ñooñu mu tudd ñëpp ay Pape Diop Bosson ay Aline Fall ay Mohamed Ali ci lamb ji nekk ko ci bëre ci fulla ci jom ci kon defe naa tey bu ñu ba toll ci âge boo xam ne nii mage la feebar dab leen defe naa la tafaagi wax xel mën na ko nangu jàppale leen du yàq dara yaa ngi dégg kon ñi ko war def te man ko yàlla na leen yàlla xiir ci ñu def ko ndax nag ay sa ndimbal moom heure bu ne lañ koy soxla te fu nit di toll da nga même boo yoroon lu dul jeex sax des fois soxla ndimbal ci xel soxla ndimbal ci beneen fànn kon defe naa lu Tafa Gueye wax am na solo mu mel ni kon moom fàttewu leen yaa ngi dégg gis nañ bëri ki démb lu lu le cas de Boy Bambara ak wax yi ci amoon ak yooyu ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ku ci ne jóg delluwaat ci sa sago xam nga yàlla defal la jàmm defal ko bépp doomu aadama euh, mu mel ni ki daal loolu Tafa Gueye wax na ko mbër bàyyi xel daal waaw te seetuñu ki nga xam ne ni nag mooy euh, Bathie Seras moom tamit euh, yaramam jege di fan yi ñu koy ñaanal rek euh, mu jug ak jàmm waa Bathie waa ndeysaan di baax vraiment parce que li tax ma wax mooy moom ci na ngeen di waxtaane ak na ngeen di kii rek ci nga mën a sukkandikoo wax ci moom te man dañuy faral di waxtaan lu bëri muy koo xam ne tey defe naa ne bu ko wéree dabee ñu koy ñaanal yàlla mu jóg ak jàmm muy booy ña nga Gris tamit la ñu def rafet na parce que tamit ñoo bokk milieu bi te feebar ku ne lay dal ndax bari ki démb bu yàggul matagul Lamine Lutte TV vidéo boo xam ne ni vidéo bu am solo la ñu teg ci quelques jours mu tëdd feebar gis nga àddinaa ngi noonu noonu la mbir yi demee kon yàlla na jóg ak jàmm di ko nuyu di nuyu soxnaam ak ay famem yëpp rawatina magam di Aliou Ba waaw. waaw Babacar ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre seen revue de l'arène di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñëpp incha allah di ko ñaanal ñëpp rawat na ñu nekk eh, bitim réew fi nga xam ne feebar baa ngi fay lëmbe ñeen yàlla yàlla musal leen muccal leen ñi tëdd yàlla yëkkati ñun ñi nekk Sénégal it yàlla musal ñu muccal ñu parce que tam gis nañ ni corona bi mu ngi fi am doole cas communautaire yaa ngi yokk ñaan yàlla rek mu musal ñu ñun ñëpp jële fi jàngoro bi nu mu gën a gaawee. amiin yàlla nañu yàlla musal te muccal ñu ba ñu bokk ci ñi koy net li ëllëg tëdd tamit yàlla ñu jóg ak jàmm ay sa loolu moo jara ñaan waaye ñun tamit na ñu gën a fagaru nu ñu gën a fagaru gën a moytu gën a def diglay docteur yi c'est man lenn rek moo may metti ci suba rek dégg naa nit bu koy wax que ni gëmul ne feebar bi am na ma ne dama ko mere man ne ko yow nit nga wala loo doon wala ci man réew nga ne wala ban monde gens yi dégg am na ñoo xam ne xel yooyu ñuy doxee di loolu wax bu garaaw a la kon yooyu dafa jaram moytu gens yi dégg xam nga ne ba ba jàmm di am takkoo sa gémmiñ ñi mel ni béy wuñu sendal man ma mel ni béy wuñu sol ñu ay gafaka yooyu amul mais léegi ku sol nga biram sol man su sol ma sol ku ne daw sa morom doo ma jox loxo du ma la jox loxo nga ne feebar bi amul kon nañu ànd ak am xel si yaa ngi dégg ñaan yàlla mu jeex encourage tamit suñu service de santé yi encore une fois la ko commencé si le ministre de tutelle Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi mu seqal liggéey bi yépp parce que itam ah nañ leen gën a jàppale parce que mbir dana toll foo xam ne bu ko dina ëpp ci ñoom te loolu ñaanu yàlla yegg fa te bu ëppee olof a ko wax lépp tuuru. yaa ngi dégg kon yàlla na ko fi yàlla yemale barke nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam si jàmm di nuyu internet yëpp Cheikh Abass sama masque ngi nii maa ngi lay béggee di nuyu képp ku ñuy seetaan ñoom Mamadou Kaolack Diallo gaa yëpp ñoom Benzema dem tuuti yaay Sarr Khady Rose Ndiaye xam nga Fatma Fall Asi Diagne di nuyu tamit Amar Gueye Siri Nogoy ca Italie Amar maa ngi lay bëggee bu baax a baax a baax a baax di la ñaanal jàmm caat fay sama Siri maa ngi koy bëggee moom tamit waaw. waaw Babacar ñu joxe rendez-vous rek incha allah.